jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ngi ànd ak solution TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te partagé te xam ne seen mbégte daal mooy suñu yitte. ñuy gërëm bu baax ñi amee initiative bi di alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohi bu Jóob waaye di ko gërëm moom sëriñ Fàllu Gumbala mi nekk ci xarale gi ba tax ngeen mën ñoo gis tey jii nag bëgg nañoo waxtaan ak euh, Baye Demba Ngóore Fall xam naa ni incha allah rabbi bëgg nañoo waxtaan ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu Euh, waxtaan wi nag euh, li ko soxal bokk na si fële sa tawafaal wala boog Louga wala boog côté yooyu yëpp daal incha allahu rabbi jafe-jafe ya nga xamante ni ñu ngi koy euh, dund wala la nga xamante ni am na fa daal loo xam ne jàpp nañ ne du noonu loolu lépp incha allahu rabbi bëgg nañ ko waxtaan ak askan wi waaye waxtaan ko kilifa ak réew mi xam mbir mi dëgg-dëgg la demee indaale nañ it ay euh, quelques dossiers yoo xamante ni seen tawat lañ si euh, dëxëñ incha allahu rabbi ginnaaw ba ñu bàyyee suñu bàyyi mu nuyoo ba noppi la waxtaan woow yi di am ginnaaw ba ñu jëfalee ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan papa ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. Euh, Assane. Hmm. ñu ngi leen di nuyu di leen jaar. Hmm. di leen dolli njukkal si liggéey bu rafet bi ngeen di def. Hmm. rawatina ñi nga xam si suñu classe yi ñi nga xam si dañoo xaw a isolé wu tuuti. comme niñ ñu la ko waxee. bon li ñuy jàmbat rek mooy mooy problème mu Njabi Fall. Njabi Fall waaw. ndax Njabi Fall de gis naa fi ab dëkk ñu def fi maam Cheikh biir kayit yi ngeen yor. Njabi Fall dëkk maam Cheikh moom Njabi. waaw. Mhm. Euh, waajuram bu góor maam Roqaya. Mhm. maam Amadou Roqaya Fall. maam mhm. la dëkk. foofu la dëkk. la juddoo. Cheikh la juddoo. Njabi Fall la ah. muy dëkk cosaan. Ah. dëkk cosaan boo xam si historien yi mag yi wax nañ ni moo mag sax Kébémer. moom Njabi Fall. waaw. Njabi pays la woon. pays la woon. bi ñu dellu seen ak yu ñu bàyyi ci ceddo gi ba hmm. duggaat ci lislaam waaw ah. la euh, njabi am ay kebe kebe kebe kebe yooyu ñoo doon suñuy sëriñ mm-hmm. kebe kebe yi ñoo sos kebe meer mm-hmm. léegi nag diggante ay village yu mel ni njabi tob bi ndaqaar mm-hmm. ndaqaar sill la waaye am na ay kebe kebe tob kebe yooyu yëpp njabi am na ay kebe kebe comprends waaw kebe yi ñu dugalaat ñooy suñu sëriñ daal. ñooy seeni sëriñ. ñu dugalaat ci lislaam jàngal nu Alxuraan. Ah. macha allah. Mm-hmm. waaw ñu di ko gërëme waa kebe. waa kebe meer waaw mooy dëkk bu mag ba. mooy dëkk bu mag mm-hmm. man mii njabi laa juddoo. Mm-hmm. waaye maa ngi yar ko biir kebe meer. kebe ba kebe ñoo ma yar. kebe kebe yee la yar. ñoo ma yar. sama baay ji yàlla yàlla yokk leeram. sama magu yaay ndaat mbeng ñoom lañ bokk ak El Hadj Ndiouga Kebe. alaaj njuga kebe ba tey bokkul kebe googu. ah kebe googu kii ba ba tey benn famille bi la. ah benn famille bi am naa sama benn doomu ndey joo xam si Cheikh Kebe. Mm-hmm. Euh, ancien kii la la woon nekkoon euh, SAM Kebe. Mm-hmm. bari na poste yu mu occupé woon quoi ci Oldil Kebe. Mm-hmm. Franco 6 ba aéroport euh, Sores. yooyu yëpp occupé woon na. sama doomu ndey la. Mhm. Euh, dinaa ko sax doom quoi. ah di ko nuyu de passage. Mhm. Kébé dëkk bu toll noonu di Tawa mu nga xam ne daanaka moo jur. Kébé maire Njabi Fall waaw Njabi Fall. Mhm. Tawa Fall nag lu mu si doon moom. Tawa Fall. Njabi euh, Fall Tawa Fall beneen dëkk la beneen village la. beneen village la defe naa ne boobu Tawa mi ngi ci booru Louga yooyu. mu ngi booru Louga Njabi nag fu mu nekk. Njabi mi ngi ci diggante Kébé maire. ci Kébémer la. ci Kébémer la nekk Kébémer à 2 kilomètres de Kébémer. 2 kilomètres. 2 léegi ñoom yan jafe am. te boo ñëwee ba Mbacke. xam nga euh, comme Touba. Mhm. da nga ni Touba ni Mbacke wala nga ni Mbacke ni Touba. boo ñëwee Kébémer booy génn pour dugg si ñebe. Mhm. yaa ngi dëkk dëkk jot bu naan Mbacke. Mhm. Mbacke boobu dëkku sëñ Baara la. maanaam quartier sëñ Baara la. mais da koo bàyyi rek doom ju naan sëñ Xaadim Ba. sëñ Xaadim ah, Awa Ba waaw. mu bàyyi fa tiir actuellement xalif bi mooy euh, sëñ Saliou Mbacké boo ñëwee ba Mbacké nag ma ngi fay tabax jumaa joo xam si macha allah. Mm-hmm. léegi boo ñëwee bu Mbacké nag digganteem ak njabi mm-hmm. daanaka matul deux kilomètres mm-hmm. te sax dafay ñëw ci Mbacké nga neef Bawol digganteem ak Touba ni mu demee Mbacké gee Baye Fall yaa nekk Touba ñu fa ne waa kër maam Cheikh Bamba kon day dellusiwaat fii ci njabi ak diggante Mbacké kër xaade kër ci euh, euh, sëñ Saliou mooy nekk kër xaadim aw ba sëñ Saliou nekk fa tey comme xalifa boo ñëwee ci Kébémer bala ngay dugg bala ngay dugg ci mbeddam njabi mi da ngay ñëw Mbàkke doog a dog nag yoonu njabi bi muy njabi Fall kon mënees na koo tuddee Mbàkke Mbàkke Touba Touba Mbàkke waaw <laughs> mu dellu fële quoi kon ay Baye Fall lañu mm-hmm. waaw ay Baye Fall dëkk ba rëy na dëkk ba dëkk ba enfin rëy na rëy na parce que gis nga marche bi rek la fa jóge ci nit kenn xamul nu mu toll. Hmm. te dëkk ba rëy na rëy woon boo xam si nun suñ coobare bopp ak xarañteeg xale yi dëkk ba jàng nañu am nañu métier ñu ngi fa tabax benn ñu ngi fa dugal benn mbaar boo xam si euh, de trente cinq chambres. Hmm. trente cinq chambres chambre bu nekk quatre mètres la. Hmm. ñu tàllal ko. waaw ah, nañ ko daanaka ba lépp àgg na. macha allah comprendre nga. de hmm. ce fait que bu àggee lu ne lu nekk mën nañ koo teg ci kaw. Hmm. imagine toi trente cinq chambres multiplié par sept. par sept euh, waaw non non euh, cinq chambres cinq multiplié par sept. Hmm. xam nga dafa lay jox trente cinq. Ah. chambre bu nekk quatre mètres la. te loolu kenn fekkuñu ci lu dul taalibe yi. ak waa Kébémer. borom euh, waa njabootu Kébémer ba parce que njëbee rek mm-hmm. njëbee Kébémer benn lañu mm-hmm. lu njëb yëngal waa Kébémer ñëpp àndandoo mobiliser wu def seen alal mm-hmm. parce que ñu bari du lañ toxoo dem biir kebe ñiy toxu dem Touba foofu la ceddo gi tase léegi ña fa mënut bay jóge daal ñoo fa des comme sama classe <laughs> waaw nga xam naa am na ku ñuy wax saa wolof moom moom ay affaire yi ceddo baatu ceddo dama koy dégg si moom lool oh. est-ce que bala ngaa dugg si waxtaan wi ak Euh, li ngeen dëxëñ fii ceddo mooy lan. ceddo waaw. damay dégg gars yi naan ceddo ceddo ku demee saa naa man ceddo laa ceddo laa. ceddo ceddo nañu yàlla baal waruñ sax di ko tudd ndax tuub na ginnaaw dugg nañ ci listaam. moom de moom nee naa ba léegi ceddo la ku ñu wax saa wolof. kan la ji ku ñu wax saa wolof. saa wolof ceddo la ceddo la saa wolof moom ay moom dafa xóot. moom da cee naan ceddo laa ceddo la mais boo ma laajee ceddo fi mu nekk nii. Mm-hmm. danaa ci xaw a tëlee. Mm-hmm. danaa ci xaw a tëlee tas. Mm-hmm. xam naa loolu historien yi Hmm. ñoo ma koy gën a. gën a xam lan mooy ceddo waaw ceddo. am ceddo daal xam naa li ma ci xam mooy ñu doon ànd buur di xeex ak. Hmm. di xeex. loolu la nga si xam dindi noteel. Hmm. di bañ. ceddo dëgg-dëgg day bañ. ah macha allah. kon ceddoo bañkat la lii kayit yi lan ngeen si dexañ. kayit yi mooy euh, ñu ngi ko defar depuis euh, le onze mais deux mille vingt quatre. Euh, après lañ ko adressé. préfet préfet bu Kébémer bu mooy avant ñuy def marché bi xam nga foog nga am autorisation. Mhm. léegi bi ñu demee autorisé bi ñu demee clé bi tapé clé bi dañ ko jox préfet. man mhm. naa koo liir bu la neexee. Mhm. waaw. waaw xanaa l'essentiel l'essentiel bi rek bu ko defee. waaw ba tey. ba tey xanaa di jël kii lay rek di jënd pàcc yi gën a am importance. comme temps bi dafa xaw a gudd. dafa dafa kii sax waaw waaw. bisimilah rahmaani rahiim. ah le préfet. du département de Kébémer. Hmm. objet exposé ex des problèmes du quartier de Ndiabifal. Hmm. Monsieur le préfet, à travers ces mémos ces mémorandums, hmm. nous aimerons exposer les difficultés auxquelles notre quartier Ndiabifal est confronté. Étant un village traditionnel et récemment intégré dans la commune de Kébémer hmm. avant d'être érigé en quartier Ndiébi Fall mas manque, presque de tous vos êtres sans savoir que le nombre d'habitants a considérable, a considérablement augmenté mais aucun aucune infrastructure sociale de base n'a suivi. Ainsi, nous demandons à ce que Ndiaby Fall soit considéré à, sa juste valeur. Mm. Nous souffrons énormément à cause des nombreuses difficultés. Ainsi, Ndiaby Fall besoin d'un renforcement des dispositifs da milliard de d'ami da da mi d'alimentation en en en électricité. surtout en électricité comme par exemple en ah, électricité bi. Ah, ah. maam daal maa ngi maa ngi defoon depuis demande. Mm. Euh, avril 2023. 2023 kon loolu ñëw na fa rek ñëw nañ fa nag ba xool. Mm. ñëw foog nga am benn poto. Mm-hmm. man leen poto boobu attanu ma ko. Mm-hmm. waaye toujours tout chaque fois su ma demee man Dakar laa am kër. foofu Jabi euh, man maa ngi dëkk Dakar. Dakar waaw. mais damaa am kër Njabi. am naa fa kër am ma la. léegi su ma demee. Hmm. parce que du munoo. kon daa yow topp seddaay bi ak noos bi rek bàyyi leen fa. waaw que man hmm. sérieusement damaa tàngoor. xam nga nitu kawar day ragal moo tax ma gëj fa fi mu nekk ku ma woo da courant. Hmm. foofu njabi amul courant. Oh. am na courant mais courant ba doyul comme li ma la wax nii ñun bari na ci euh, quartier yoo xam si. Hmm. def nañ seen installation mais ba amuñu ba léegi amuñu. amuñu courant mais am na tali. tali bi amul loolu mooy coow li. léegi tali bi lu ko te am. tali bi ma wax la euh, li ko tee am. Hmm. xam nga njëloo njabi dañ di ay Baay Faal. waaw toujours dañuy toog di déglu ndigal. Hmm. léegi nag yëf yi dafa dema a dem dem ba tas maanaam ni mu tase mooy. promobile bi mu ñëwee di natt tali yi ñuy may. Mhm. comme par exemple léegi bi mu euh, waxee ni promobile daf ñuy may par exemple cinq kilomètres soxla jëkkoon wax. cinq kilomètres lañ leen di may. yéen waa Njabi Fall cinq kilomètres et quelque. waaw non diggante village yi Njabi euh, Tob bi. Mhm. parce que yooyu dañu ay dëkk la ñu loo si sori bu ñu KMR à un kilomètre cinq cent deux kilomètres. gën ngaa mhm. bari. léegi nag ci jamonoy Abdoulaye Wade en 2007. la Abdoulaye Wade di ñëw dugal njabi ak topp bi ak ndaqaar ci biir Kébémer mhm. quartier lañ fa mhm. benn bu nekk quartier la fa mhm. parce que bu njëkk bu ñuy bokk bokkagul Kébémer boo de boo amee kayitu judd boo xam si euh, njabi faal nga juddoo yaa ngi koy lijjantee sagata sagata xoolal xoolal xoolal distance boobu sagata nga koy lijjante ji say kayit yëpp sagata te Kébémer nekk fii euh, nga taw da ngay taxaw njëbi di gis Kébémer di gis Kébémer te mënoo fa woon a lijjante yenn kayit li ci topp xam naa lépp duñ ko mën a wax Ablaye Wade wax ñu boole ko ah Ablaye Wade wax andi ko foofu moo ko andi Kébémer Ablaye Wade moo ñu boole ci hmm. Kébémer Kébémer mais tëli bi laa euh, lu tax ba pare ci ci ayam en 2007 moo ñu indi moo fexe ba ñu am courant hmm. courant bi mi ngi jóge benn village boo xam si suñuy doomu ndey la Mbéngéen Mbéngéen waaw Mbéngéen Mbéngéen mais tëli bi wala rang amu fa amul rang-rang amul tëli lu ko tee am li ko tee am mooy coow li fi mu nekk nii. lan mooy coow li. lan mooy coow li dafa ñëw ba natt ba ñu def ñuy defal tali. natt nañ ko ba pare. waaw tali natt nañ ko ba pare. xam nga euh, bala mu war a neex. Euh, Kébémer dafa sori. Hmm. man ñu am xale yi wam kóolteeg. Hmm. jox ma lii pour mu ñëw toogal leen fi. Hmm. mais amoon nañ benn conseiller. conseiller mooy sëriñ Sarr. waaw Serigne Serigne Sarr boobu. sama sama soxna mag sama mag bu góor. Hmm. doon taaw sama papa. Hmm. soxnaam bu ñaan Fat Fall. Hmm. Yax Fall. moo doon euh, bokkoon ci kile yi nu mu tëti conseil yi. Lamine Thiam yi. léegi xam nga moom rek du doy. ci la jëkk ci la jëlee Serigne Sarr. ni ko kaay nga ma mooy dem conseil ñu ak keneen keneen ci la euh, ci la ko Lamine Sarr Lamine Thiam boole ci conseil yi. moo tax la muy xam. Mm-hmm. nun ah, ah, surtout man mi nga xam si fii laa dëkk. Mm-hmm. du ma ko mën a xam. Mm-hmm. waaye nag ci ci waxam. ak ci wax waa Ndiébi doléance waa Ndiébi. ci laay sukkandiku. ba ñëw. moo waral sama tànk yi. mais lu waral lu waraloon dox ñaxtu bi. <coughs> lu waraloon dox ñaxtu bi. moo di gis nga même internet pour nga am réseau damay yëg sama kaw terrasse. pour nga am internet. pour nga am internet. doo mën a seetaan YouTube euh, Facebook dara foog ma yit ci kaw. Mm-hmm. xam nga ma. te mm-hmm. amuma courant boole ci. Mm-hmm. parce que poteau yi dañ ko waroon a tas bu ku soxla courant am. ba fi mu nekk nii jot na envoyé nañ ay photos yoo xam si bari na ñoo xam si def nañ demande comme li man. ba léegi jotuñu courant. du ci Sénélec parce que Sénélec dem naa fa am entreprise su ma voyagé su ma demee fa dama dana dem ci ñoom. bu ma demee ñoom dañ may enregistré ci machine bi. bu ko defeente ni dañuy yaakaar ni man lañ ma doon wax muy poté bi yemb na hmm. ñu taal seen lakk seen essence ñëw fekk si ma hmm. comprendre bu ñëwee ñu def ko am entreprise hmm. benn bis euh, kenn ma leeral nag ni ma ah, boo fa ñëwatee toujours dañuy toppaat sa tànk yaakaar ni installation wala poté bi pare na te essence boobu ñu lakk xañ ni ci ñun ah ci laa ci laay so comprendre ni ko wax nga dëgg dematuma fa. Mm-hmm. may di xaar Poteau. Mm-hmm. te doole Poteau. Mm-hmm. xam naa léegi loolu moom dinañ ko tëje comme sa gouvernement bu président Diomaye lan ngeen di xaar ci moom foofu si Njabi Fall. incha allahu rabbi mais yow mi nga xamante ni fekk nga nguurug Abdoulaye Wade. waaw. maîtriser ko bu baax ak nguuru président Macky Sall ak nguur gi nga xamante ni nekk gun na fi. Hmm. Euh, ban message nga mën a jàllale si gouvernement yi ba xamit yan yaakaar nga mën a jox jeunesse bi. wala hmm. yaakaar yi jot a tax tas yi weesu wala wala wala. Euh, man moom dama farlaqoo je suis PDS 100 pour cent Ablaye Wade laa gëm. Ablaye Wade laa gëm. Hmm. am naa sax jarbaat boo xam si Assane Wade. Assane ah, ma nga Amérique. xam nga li ah. ci Wade nii la. xam nga lépp mënoo su ko wax. waaw ah. waaw Wade daal yëmale mu ko kenn. président Ablaye Wade waaw. te mm-hmm. ah, la ma doon wax ah, ab laxaat ke bi nee naa ko Ablaye Wade ku mu mën a teg Kébémer ni kii laa bëgg moom laa samp Kébémer mm-hmm. ku boobaa kooka day ba fi mu ne nii nii nii ba fi mu ne Bassirou Diomaye Faye bi ngay wax mm-hmm. ak euh, président Sonko ñoom it ñu ma gëm laa ba Ablaye Wade joxoñee ni wateel leen Diomaye Diomaye ak Sonko la ñu wateel waaw ah, waaye nee nañ waa PDS dañ see kii noonu rek dañ maam dañ ni waaw rek waaye wateeluñ ko sax waaye nun xam nga waaye nun en tant que mm. xam dëgg. Hmm. parce que euh, Diomaye ak Sonko. ku dul hmm. naa fekk. Hmm. da nga ànd ak ñoom parce que li ñu lay wax dëgg gu leer nañ la amul leer luñ ciy laq-laq. te loolu lañ soxla mais duñ soxla wuñu koo xam si da ngay ñëw. di ñuy di ñu nax rek comme fii comme nun par exemple ku ñëw wax. comme Karim Wade leen di def damay ñëw suba tey ginnaaw suba dinaa ñëw tudd ma sa ñëw. non Karim dafa am day gor. Karim waaw day ah. gor parce que am na yoo xam si ku la ko def. ku la ko def. te ki la ko def sa bàyyi yar hmm. mu falu mu yaakaar ne da koy xëcc ci wetam wala bàyyi ko mu poli mu opposé comme yeneen opposants yi hmm. mu ni kenn du ko fi waxee hmm. noonu la def Khalifa Sall noonu la def Karim Wade bëggoon ko song ab Ousmane Sonko yàlla dimbali ci wa mënewul ko dara sottiwut sottiwul du sotti mukk <laughs> parce que gëm li ma lay wax ni la am naafiq du gëm song ku jubul jubuloo rek ñàkk ñàkk gëm sa sama baat ca kaw mais Sonko bi ko xale yi toppee yéen mag ñi di ngeen wax naan gone yi dañoo réer kii ñuy topp mais ñu dem ba yàgg yéen mag ñi ngeen gis ngeen daw topp Sonko man jooy naa sax ndax moom jooy naa j'ai pleuré ndax Sonko jooy ngir Sonko waaw waaw boobu loolu jooy Sonko xam nga waxee indi wax bëgg ko te it d'un côté muy sama goro waaw ndax Khady Kébé moom mu takk comme deuxième femme waaw man Ouakam laa dëkkoon mook sama benn xarit Ali Kébé di rakk Moodu Moodu Kébé. Mhm. Moodu Kébé gendarme la woon. Mhm. ñu ngi nekkoon pour la paix. Mhm. fu añ jotee dañ daan ñëw euh, jóge Ouakam ñëw dugg ci biir camp bi añ këram aaw moo nekkoon Birame Kébé. comprendre nga nga xam ni kon xam naa leen bu baax. Euh, jomaa it mën naa wax ni goro la ci man. ndax rakkam bu góor douanier la. moo takk doomu Ndey Kébé. Ndey Kébé boobu yaayam. ñoo daan ànd ca tool yi mu di ma daggal ay tooñ ay dooñ mm-hmm. sama baay jibi kebe euh, ak ak ku mu ku mu maasaloon mu doon sagar kebe na àddu yàlla na yàlla yërëm la xam nga yooyu mm. duñ la ci yar ba pare mm. nga bëgg nekk leneen loo xam si kon kay kon bu Karim Wade joxewutoon ndigal yi da nga leen woteel non mais dégg ko li ma la wax Abdoulaye dama ne ku mu sampoon Kébémer ku mu samp ni kii laa bëgg ñu teg ko fa moom la ñuy war xam mm. moom la ñuy xam léegi Karim Wade nee laaj na leen poste ni leen nag il faut ngeen joxam poste ndax damaa ñëw jàpp ci bi ngeen gagné. bu ko neexee. bu ko neexee laaj. gis nga ni moom def na si lu jar ñu jox ko poste ndax moom campagne ñut ñëwut. financé wu def dara man ma su ma doon moom damay ñëw rek. Hmm. damay ñëw rek parce que yooyu day mel ni chantage. Hmm. day ñëwal boppam. ah day ñëw day ñëw rek toog hmm. opposé wu. opposé wu. Ah, ah waaw nekk comme comme parti politique yi. parce que Sonko. d'accord liñ koy bëgg bëgg bëgg foog mu am kuy ne ci wetam. Hmm. di ko di ko parce que opposant da lay jubbanti. day wax sa erreur nga di ngay di ko rectifier. Hmm. comprendre hmm. du ñu nopp foog ñuy wax. fekk ñuy wax waaw noo gisee Amadou Ba bi ko président Macky Sall tànnee ñu demaat ba si biir ñu ni président Macky Sall kat dafa bëgg a dellu ginnaaw si tànnin bi ba woolu woon ko jamono yooyu yaakaar naa mi ngi seen côté yooyu. moo man xamuma ko kooku jëmuma ko sax xam. Amadou Ba sérieusement non déggu la Abdoulaye noppi naa ko gis Macky Sall ñëw na dem na ci jàmm Sonko ñëw ñii ñaar laa gëm. Amadou Ba xamoo. Amadou Ba. moom la président Macky Sall daan non ah? reconnaître ma ko moom moo jiite opposition bi. parce que moo jël deuxième position. kenn Ba lan la la def. dara dara xam nekk sa choix. Hmm. ku nekk ak sa choix. Amadou du sa choix. lan yan qualité nga gis ci moom yoo xam ne la. yi qualité bon ah daal li ma la wax rek mënu ma jàpp ci lii na pare di gëstu leen waaw loolu la loolu la Ablaye Wade laa gëm Ablaye Wade moo nekk fii yàlla def na euh, na ma baal ci jéggal sax président Ablaye Wade euh, yàlla def na dem na Sonko fi nekk te Sonko dama ko bëggoon sama xol parce que du dul naa fekk far ñu li muy wax nii te Sénégal yëpp dañ cee gis seen bopp mook Diomaye l'épreuve euh, moom fal na maire fal na député fal na président léegi. Mhm. te kenn mënu ci dara. Mhm. dara. Mhm. man j'aurais préféré. Diomaye def dix ans. Sonko ñëw. nekk président. def dix ans def dix ans. muy quarante ans. ànd nga ci ànd nga ci. ah bien sûr. <laughs> Diomaye Diomaye ak pouvoir am. Diomaye def dix ans. Diomaye ak pouvoir am. jox mu def dix ans. de Sonko di dix ans Diomaye Sonko defee dix ans. Jonko Jomaay euh, day jeexal. Ah. muy deux mandats yi. waaw ah. Sonko ñëw def mais bu ñu falul bu ñu falul Sonko. Hmm. duut ñu am keneen ku mel ni ñoom dañ koy ñàkk. Hmm. keneen rek ka fi mën a ñëw. indiwaat te kooku est-ce que dana méngóog li te mën naa ñëwaat indiwaat système bi. ah mu ñëwaat indiwaat système bi. système boobu système Ablaye Wade bi. système Ablaye Wade. Ah. tout va changer. tout va ni muy diri ni ma gëmee ni noonu lay jëmale Sénégal. mënutu keneen mënut koy ñëw ba nax Sénégal yi. wala nga def naka su dul noonu ba réussir. parce que boo koy def it Sénégal yi da la parce que nous sommes des démocrates quand même. démocrates ci dëgg la ñu mhm. kii nu mu tuddati président Diomaye. président Macky Sall bi mu fi bëgg a jógee dafa signé woon ay accords yu baree baree baree baree ministres yi sax bi mujj dindi nii tey moom président Diomaye mooy dafa président Macky Sall dafa bindoon képp ku mas a doon ministre daal mën ngay fayeeku même boo retraité da ngaa war di fayeeku moom di président Diomaye dindi na ko nee fi ni ku doon ministre doo fayeeku tous euh, est-ce que loolu war nañ koo dindi. loolu sama ma sama xam-xam àggul foofu. Hmm. la tax mu def ko moo ko xam. li tax mu dindi ko. waaw ah. président Macky Sall daa signé woon yu dem. yoo xam ne loolu yëpp la signé bàyyi ko. pour man c'est hmm. pour man sabotage la. yim signé accord lekk ma ci cere ji naa ci xëpp suuf loolu. loolu la bëgg a sal ñi nga xam si ñoo koy remplacer. Hmm. te loolu du yëfi nit. defu ah. ñu te ñun Sénégalais yi soxal wuñu loolu. Ah. bëgg wuñ ko noonu. li nga gouverner ba desee ay fan daal mënoon nga ko continuer. mais dese ay fan signé lu bare baree bari. bon c'est du sabotage. loolu laa ko mën a jàngate man. sabotage mhm. sabotage la sabotage mhm. ku demee ni Dame Mbodj wax na nee na président Macky Sall il faut que ñu indiwaat ko man ko àtte moom ñi mu àndaloon wala ñu bàyyi ñëpp. waaw xam nga xam nga Assane. Mhm. yaa ngi may dugal ci loo xam sax. waruma ci dugg. non kii ma toogee ak yow ma toogee ak yow te laajuma la yooyu gars yi duñ ma ko baal. waaw loolu li may indi mooy njabi fan. <laughs> xam nga ñun amuñu xam-xam. waaw maanaam kilifa yu toll na yéen. Eh, cere daaw ji fekk leen fi ak jureen xam ngeen ne am réew di doxee. kon bu ngeen di dégg yéen wax yi il faut ngeen am ci xalaat njabi fall nga tijjee ko moom ngay tëjee. Eh, daam li mu wax si eh, Ablaye kii Macky Sall ànd nga ci ñu indiwaat ko ak ñi mu àndaloon daal jàpp nañ li fi defoon tudd yoon ñu àtte leen moom bu ñëwee hmm. sama gis-gis hmm. dañ ko war parce que warul nekk président ba sere génn dem liggéeyatal feneen. Hmm. te xam ne Sénégal doxe xam lépp ba pare dem France ah? ma ne xam ne Sénégal doxe yow ko pare dem France. dem France. nekkaat ak meneen réew. dem France. Hmm. France bëgguñu nañ waxante dëgg. Hmm. bu ñu tawee suñu ginnaaw wala bu ñu neexal dafa gis intérêt fii amul bu ñu bëgg. amul. man daal li ma gis ci Sonko. Hmm. am naa yaakaar ci moom. Hmm. nii réew mi dana changé. Hmm. wala sax dama ne Afrique bi dana changé. Afrique dina changé. waaw am naa yaakaar ci moom. nii ñu def it euh, président Diomaye géej gi ba kees dégg nga la fa nekk terrain yi ñu wax ne nañu arrêté ak yooyu yëpp ñu saytu ko loolu ànd nga ci. xam nga euh, terrain yooyu. ñu ci bari da ci dañ cee dugg. ba man ñi am na samay mbokk yoo xam si jën nañ ci. ci terrain yi Mbour te leer na mooy ka ko jaay du borom hectare yi. Hmm. maanaam genre courtier la wala nangam sangam. Ah. léegi xaw ma nu muy mujjee. Hmm. xaw ma nu muy mujjee. ma am na victime. effectivement dana ci am. Hmm. dana ci am parce que am na loo xam si. tamit euh, kenn du ko bàyyee noonu. Hmm. te du ko bàyyi noonu jël réew mi séddoo ko jël suuf si yëpp tasaare ko séddoo ko hmm. ponkal def mu ñu am si ectare exemple trois hectares boo benn waay ne ko jaayal ma trois hectares mu jaay ko ay trois millions ay nangam nangam ñu nopp dem yoonam ñu ne nangu nañ ko ah, ah, ah. lépp ci a nekk est-ce que film sax duñ ko wanteer di ko def ay un million wala dangam pour bëgg cee génn parce que daw génn ñu ngi seen i tànk <laughs> ah day naar <laughs> man de j'aurais préféré hmm. ku ci bëgg daal ku nekk nga tey ba ci kanam. Uh-huh. waaw boo teeyee ba ci kanam xëy na yàlla dina la jox leneen li nga hmm. bëgg. épinglé yi nag noo si noo ko gisee épinglé yu bari yi ñi ñu épinglé. ñi ñi maanaam ñi ñu jàpp. ñi ñu naan daal sàcc nañ luubal nañ lu toll nangam li ñu leen dénkoon si li ñu leen dénkoon. waaye un milliard. pour hmm. nga liggéey ko c'est tout problème. naka la un fonctionnaire nekk multi milliardaire mënut nekk. loolu bu ko deful bu ko deful dana ko def sax. dana ko def parce que mënul nekk. Mhm. wala ci dem mhm. comme ni ko wax ku sàccoon da nga ko delloo si. waaw ñu seet la lan la ci mën a jox ñu. ñu jox la ko comme ndàmpaay nga dem. Mhm. nekk sa jàmm. am na réew mu ñëwaat tëddaat. waaw ah liggéey ci réew. am na solo mi ngi noonu xam naa ni hmm. euh, ñi ñu doon diglu rawatina waa bitim réew. kontaan nañ trop ci waxtaan wi léegi dañuy dem Tawa Fall euh, nu de dañuy dem voilà Njabi Fall hmm. bu ko defee ñu daal di koy tëjee hmm. Njabi Fall ban message ngay laase président jomaa Diomaye mi ngi lay dégg si Njabi Fall maanaam dañu am yaakaar ci président Diomaye hmm. ni ma ko waxe fii rek kii bi yëpp jotuma ko liir ngeen baal ma li euh, lecture bi du mu neex parce que bu ci neexul quoi comprendre waaw li ma xalaat ci jomaay jomaay leer na ma ni man am naa yaqin ni mm-hmm. dana defar njëriñ mm-hmm. ku ko defarul dana defar njëriñ mm-hmm. dana defar njëriñ parce que am nañ ci moom yaakaar ni ma ko waxee nii léegi man sama goro la waa Kemer ñu ngi may dégg Ali Kébé mooy sama xarit ñu nekkandoo woon Okam daan añi ji pour la paire yooyu fàttewuma ko am maa ngi fàttaliku sama voyage boo xam si grand bi dafa yoroon benn euh, r chaque week-end en général samedi dañuy dem dimanche Kébémer hmm. mais bi ñuy ñëw man la ca def ak Ali hmm. waaw ak ñaari soxnaam r la yor hmm. grand yi nag ko safoon xorom la ndeysaan ku safoon xorom waaw xam nga gendarme ak morom ji rek ah, bu bu romb gendarme yi tàll ñëpp tàll ko loxo tooj noonu la ñu ñëwee Dakar ah, R4 jamono yooyu ndeysaan du ko fàtte mukk mu doon ku baax ku doon ku baax waaw mënoon ko baax mooy sali waa këram may nuyu waa këram yëpp waaye soxnaam mm-hmm. moom biram a xari mm-hmm. ak uh, Ali moom nga xam si moo doon sama xarit mm-hmm. Ali uh, am na mag bi naan Amar Kebe aussi Amar moom mu ngi fi uh, Amode waaw yooyu yëpp ci mbokk gi la quoi si am na sa président Diomaye say mbokk day tey ji mën naan ñoo ñëw fii waaye it si ñoo xamante ni yaa leen yilif muy waa Njabi Fall gouvernement yi fi aw bari na waaye daal bu ñu sañoon gouvernement bii nga xam ne yaa ko jiite si première mandat bi ñoom ñu gis seen bopp bu baax a baax a baax ci sa gouvernement bi ndox ma doy sëkk sëkk tëli ba àgg ba sa biir dëkk ba waaye it courant ba àgg sa biir dëkk ba bu ko defee yeneen matukaay yi nga xamante ni doomu aadama bi ko soxla yépp Njabi Fall daal di koy am ndax dëkkub kilifa euh, diine bu mag la waaye ña fa nekkit di ñuy participer si réew mi di ay liggéeykat yow kon président Diomaye si loo mën a gaaw pour foofu yi daal di gaaw ñoŋ daal di koy def boo fa wootee rek incha allahu rabbi loolu dana mën a am wala nga demal fa sa bopp ndax dikk dëkkub kilifa diine bu mag la ndax dëkk boo xam ne dañ koy tudd di tudd Cheikh Ibrahima Fall moom dëkk boobu moom kenn wérantewul dëkkam bu mag ak bu yàgg kon daal ñu ngi leen di sant di la gërëm góor gi kon ñu tàggoo ba beneen yoon incha xam gis boo nekk xësee nekk mag da ngay fàtte. Mhm. dafa am lu ma bëggoon a dolli tuuti rek. mais ci biir wax ji. Mhm. bon da koy fàtte. waaw. Euh, ci biir wax ji. xanaa doo di lekk cere. ah cere. moom laa moom laa ndëkkee <laughs> moom laa parce que comme dama ne sama damay génn. Ah? man ko bëgg cere laa ak kajoor kajoor. <laughs> nga dëgg de euh, euh, dafa am lu ma bëggoon a wax nga baal ma. Mhm. xam nga rek mag. waaw waaw naan la naan la xam nga rek mm. mag. mi euh, ngi noonu xam naa ni en tout cas. waaw di dellu si. Mm. di wax ak Lamine Thiam. Lamine Thiam mooy kan Lamine Thiam mooy maire bi. mooy maire bu Kébémer maire bi amal problème fi mu nekk tey tey. ah maire bu Kébémer. waaw mooy Lamine Thiam. mooy Lamine Thiam. Lamine Thiam maire bu Kébémer. boori bu Kébémer. waaw Lamine Thiam it di ma dem ak moom. Mm. sama gorolo. waaw sax euh, soxnaam. maam tukulóor mi yaayam. Mm-hmm. Baye Ibra Ndak Fall mooy baayam. Mm-hmm. Baye Ibra Ndak Fall ak sama baay ñoo bokk benn ndey. Mm-hmm. comprendre nga. mbokkum réew mi nga. doon euh, sëriñam doon sëñ Modou Moustapha Fall. est-ce que. xam nga li la wax. Mm-hmm. sëñ Modou Moustapha Fall bi mu génnee àdduna. sama baay bu. ndaa kii tabla àjjana. mooy sama sëriñ man. sëñ Moustapha Fall. sëñ Idaali Fall sëñ Idaali Fall aussi. yaayam soxna Farsar. Mm-hmm. daal macha allah. macha allah comprendre nga. Mm-hmm. kon Lamine Thiam ay doom seen mm-hmm. maam la sam parce que samay. mais Lamine Thiam de moom gars yi dañu woote fii di ko jàmm léegi de am na mu def ah. si kawam léegi de. waaw ah, parce que li mu ah. beddee njëbi nii. waaw du yoon. ndax daal nee nañu moom daal lu ñëw léegi mu yóbbu si beneen dëkk wala mu def si biir dëkk ba yemale foofu. njabi daal am na ni da ngeen a xaw a de. mooy li wax nii. mooy li wax nii. xam nga hmm. njab xam nga njab bi ñu defee euh, poteau yi bi mu ñëwee. Hmm. poteau yi dafa bare bari bari ba nattaale comme li ma la wax wax naa la ko ji wax natt nañ sa sama koñ. Hmm. mais bi ñu demee ba ci biir ci li ma li ma li ma conseil benn conseil ci maire bi wax. Hmm. ni poteau yi koñ boobu yëpp nattoon nañ ko ba poteau dañ koo yóbbu jël Touba xam nga Baye Fall. boo ko tuddalee nii la nga lañ la waroon jox jox nañ ko Touba. waaw ah. te nga gémmiñam waaw mais nag ci ci ci coow li. Hmm. ci la feeñee ndeke au lieu que mu jox ko wànja bi. Hmm. da koo tasaare ci biir Kébémer. Hmm. jàmm gën. ah tasaare ko yeneen eh, quartier yi. ci bàyyi njabi. bàyyi njabi te xaw ma lu ko waa njabi def xam naa. li mu dangeen ko dangeen ko war di wateel nag. moom la ñu mës a xam. dégg ma sama soxna. sama taawu papa soxnaam bu jigéen Fat Fall. njabi gépp moom lañu mal mas a xam mhm. moom lañu mas a xam ba Seex Booy Saar bii ma lay wax nii mhm. euh, euh, lu mu xam mhm. euh, yax faal foofu faat faal ñu naan ko yax faal moo ko xamal parce que bu daan dem dana ànd ak moom dem mairie day ñoom yëpp mu di ko taxaw moom moo moom moo def bi yëpp moo ñu ci yee aussi ndax xamu xam nga lii boo ci xamul dara doo ko mën a bind ak kile yi ah, lii de ko def moom jàmbaar dëgg la moom ah? jàmbaar la jàmbaar la kon sànq may wax rek Lamine Thiam. Mm-hmm. na delloo si xelam. na delloo si xelam. te nunu nee na. Mm-hmm. nunu nee ñëpp ay mbokk la. Lamine Thiam delloo si sa xel mi. delloo si sa xel. Mm-hmm. nga delloo njox njabi li ñu moom. ndax ñu ngay koo koo jox tali. njaboo leen ko gën a yelloo. ndax njabi am na ci sama mbokk yoo xam si wala sama xarit yoo xam si sama place doom lañu. dañ daan euh, dóor waar. njigante njëbi ak kebe di mm. transporter mm. am na ci moom seen fas daanu ci sama kanam mm. ndax suuf su dog parce que camion béton yeeg ciment beeg ñëpp di ñëw yi indi kile dañuy dagg yoon yi xam nga sa saret di aw pneu saret euh, kii bi ak pneu camion fu mu aw beneen saret bi fu mën a aw tey ci la ñuy xëy di ci gont pour mën a am luñ dépensoo parce que du toujours nga am yàpp ba marchandise comprendre am na solo ma di leen ci yërëm di leen delloo vraiment ñu kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Ah. te di la ñaanal bu baax a baax suñu borom gën la fee yàggal gën laa wéral ba tawat bi nga xamante ni amee ngeen ko boo fii dikkaat daal boo ñëwee da nga ne ma làmp ya tàkk na. tëli ba egsi na ndox maa ngay ball foofa sa njabi faal. incha allah yàlla mën na ko yàlla ko bu ko defee euh, président Diomaye daal mbir maa ngi ah. noonu sa mbir la. Ah. ñu ngi sant bu baax waa bitim réew nag. ndax waa jabee nga fa di leen gërëm euh, te di leen ndokkeel. incha waaw waa Njëbi yëpp daanaka ñu ngi ci àll bi. waaw ñu ngi Italie ñu ngi France te Njëbi noonu la bare ay cadre ah. macha allah kay Lamine Thiam boo gisee ma naan bunu ma ko wax dara. Hmm. am naa doom joo si bi la jàngee ba entretien sixième dem lycée Kébémer ba am euh, nu mu tuddati bagam. Hmm. ñëw université nekk sama kër moo boîte postale jamono yooyu internet demeewul nii. ah kon dara mu di ko jox muy bindanteeg euh, euh, université yi ne France yi ne Toulouse surtout ba. ñaari université yu ne Toulouse accordé ko ce jour xam nga kooku mënu ma ko wax lu ñaaw parce que defal na ma dimbali na ma parce que keroog ba xale bi ñëwee jox ma visa bi ma xool ko yorul xaalis jaraloon na ma lu ne jaraloon na ma lu ne Mhm. parce que dama ko xool rek nit ñii ku leen jàppalewul xale yu mel ni ak ni ñu jàmbaare ñooy dem ba màgg di saaga seen baay boo tuddee ñu saaga man nag kenn du ma saaga te ma mën koo dimbale dana ma jaral lebi xaalis fu ma ma lebi xaalis xale bi nekk jàmbaar de passage di ko Mm-hmm. ak waajuram di sama mag Ibra Fall mm-hmm. maa topp ci moom net mm-hmm. mooy xalifa sama bàyyi Taalandaak Fall fi mu nekk nii muy suñu kilifa ñun ñëpp ma di ko nuyu moom sax mu ngi ci kilifa yi photo yi boo ko seetee da ko gis moo xawoon roog man rek te waaw waaw waaw Hmm. ma di ko nuyu de passage ak hmm. sama sœur yeeg euh, ñëpp rek. waaw ak waa Ndiébi Fall yëpp maa ngi nuyu. Hmm, bu waxee bu wax ji jubee nag. alhamdulilah ci Assane mii la. <laughs> alhamdulilah bu dëngee ci man. ah ci man maa ngi bëggoon a lii affaire bi yëpp ba mu jeex. mais comprendre nga bët ah, vision yi. macha allah baax baax euh, kiiwul quoi. jërëjëf jërëjëf sëriñ Fallou la sant nañ la bu baax euh, gërëm la ba beneen yoon incha allah ak beneen numéro.